yéen waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu man Diaga Diong ex travailleur wu Dakarnave nekkoon euh, chef d'atelier mécanique fabrication euh, nekkoon ko ñu licencié en juin 2021 bon keroog bi ñu licencié euh, démb dafa am benn postil boo xamante ni bi Guy daf ko def ci page Facebook di commenter actuellement ci contrat bi nga xamante ne bi Dakar naaw war na ko signé mais contrat bi nga xamante ni portugais yi occupé woon nañ ko depuis vingt cinq ans mu nekk une perte totale pour ce pays une perte totale pour tous les travailleurs parce que képp ku fi nekk di liggéeykat xam nga ni carrément vingt cinq ans yi fi portugais yi nekk c'est une perte totale amul benn liggéeykat boo xamante ni bi tey mun na fi taxaw wax la benn site habitat boo xamante ni bi liggéeykatu Dakar naaw ñoo ko moom kon yaakaar naa ni lekk ci boîte di liggéey plus de vingt ans te mënoo am kër kooku sa employeur yaakaar naa ni yéenewu la dara te bi ñu xoolee par rapport ak euh, directeur généralu SIRN muy Saliou Samb euh, depuis que yàlla def kër gi tegu ci loxoom euh, vraiment def na ci liggéey bu am solo boo xamante ni bi Sénégal dañ ko war a décorer parce que ñun xam nañu portugais yi diira PCA euh, yi fi jaar yëpp ku ci ne portugais yi xam nañ fa ñuy jaar ak yow pour fexe ba ñoom ñu amoon une prolongation moom ci boppam jéem nañ ko tenter di ko jéem a corrompre indi fi benn promoteur de lutte mu dugg visiter chantier bi ñu jaar ci moom proposer ko trois 300 millions pour que mu jàppale leen ñu am beneen contrat mais daf leen rejeté parce que moom patriote la Saliou sàmm patriote la nit ku gëm senegal la nit ku liggéeyal Sénégal la yaakaar naa ni euh, Bassirou Diomaye déclaration bi mu def ni dafa doy euh, Sénégal euh, rangooñu baadoola di siim cërey guur bu ko buggee gis na ñëw na ñëw Dakar naa fii ay gor ñoo fi ne ay liggéeykat ñu gëm seen bopp ñu mën a liggéey des dignes travailleurs yoo xamante ni bu ñu xëyee 7 heures 45 ñu ngi ci biir bato yi ci biir kal yi fu mu gën a méttee ñu nga fa di euh, wekki seen i ñax pour yóbbul ko seen njaboot mais bu weer dee bu ñu la tàllalee seen bulletin de salaire sa xol day jeex or que y a des gens yoo xamante ni ñu ngi ci kaw di toog muy dox defaloo ñu dara portugais yi ngemb leen teg leen ci kaw liggéeykat yi parce que ñoom ay portugais yu noir lañu dañ leen di dénoncer ay portugais yu noir lañu ñoo yàgg di durant les vingt cinq ans li kër gi nekk ñoo yàgg nekk ci derrière les portugais am na un euh, gars nag il se programme comme secrétaire général man musuma gis suñ ko élire comme secrétaire général moom bon li ko fi indi ñun xamante nañ bu baax parce que bi ñuy licencié en juin 2021 16 juin 2021 lañ licencié huit travailleurs secrétaire général bi ci la bokkoon mais il a été repêché par l' inspection du travail muy Pascal Gomis à ce moment là les sept ñun entamé nañ suñ procédure judiciaire mu dem tribunal du travail mais ce Pascal Gomis la maanaam xolom bu jeex moo tax finalement dafa mujj démissionné génn ci kër gi léegi depuis 16 juin 2021 ba tey à nos jours ñii di woote woo secrétaire général musu leen dégg ñu génn ci presse bi wax injustice boobu directeur général teg ci ay liggéeykat man ba ko dégg yéen journaliste bi ngeen amee archive yi ngeen génn ko musu ñoo taxaw carrément ni suñu directeur général licencié ne des travailleurs en tant que secrétaire général ci li ngay wax nga défendre say travailleurs kon loolu c'est une preuve que ni ñoom portugais yi lañ ci nekkal loolu kon jàpp nañ ni portugais yi seen bopp te ñun xam nañu dañuy fexe ba am seen euh, syndicat bopp jël ay nit euh, defar se defal leen ay avantages teg leen ci kaw liggéeykat yi ku wax ñu dàq la parce que ñun euh, bi ñuy dem élection 2021 bi ñu ñëkkee def premier tour avant ñoom atteindre luñ quorum bi ñu war a def def deuxième tour ci lañ profité licencier ñu pour jéem a ébranler personnel bi pour que ñoom bu élection yi jàllee ñu am majorité mais tel n'est pas le cas parce que fii liggéeykat yi gëm nañ seen bopp te xam nañ li ñuy def te wóolu nañ seen bopp xam nañu sànc dawaal bi ñoom ñoo ko ñoo ko yor ñoo fi yenu ñoo fi fanaan da ngay liggéey ba 18 heures ñu ne la dangay ngay doo ci teg baat xamuñ yow yan condition nga bàyyi sa kër est-ce que bàyyi nga fa dépense say doom ba nga fa bàyyi feebar na wala feebarul c'est pas problème nga daal di obligé def ko parce que boo ko deful bu subaa mën nañ la indil ay de n'importe quoi indil la utal la benn dossier sa sa dàq sa xaj na loolu nag liggéeykat yi bi ñu ko xamee ñu bañ leen a booteel bi élection yi jàllee en 2021 syndicat bi nga xamante ni bi amu fi baat ku wax ñu dàq la mooy UDTS moo remporté majorité bi parce que ñoo ñoo am huit délégués loolu syndicat de la direction générale am six kon ñoom amuñu majorité waruñu wax ci cadre travailleur ëpp ci liggéeykat yi nag am ak ñoom saa yu ñuy amee lu ñuy def dañ nañu luyee seen i nit am menace bu ñuy jël teg ko ci euh, personnel bi nga xamante ni bi c'est des sous-traitants parce que ñoom ñoo leen di jox marché dañ lay conditionné li nga bëgg boo ko deful jiyee seen i marché bañ la ko joxat yaa quelqu'un koo xamante ni c'est un ancien secrétaire général occupé na ko fi comme secrétaire général dem na à la retraite depuis am na sale boulot bu mu defal portugais yi actuellement mi ngi ci biir ñu koy ay marché millions di ko jox que euh, foofu laa jëm si damay leeral li tax maanaam euh, renouvellement contrat ak les portugais moom képp kuy baa nga bëgg sa bopp parce que vingt cinq ans yi nga xamante ni portugais yor na ko état du Sénégal amulul benn njëriñ travailleur parce que vingt cinq ans yi yëpp état bi un pour la ci am kon yaakaar naa lu foofu état sax mu mënu ci am dara mais euh, président de la république Macky Sall bi mu ñëwee xool contrat bi parce que 99 lañ ko signé régime social bi fi jógee ñoo ko signé dégg euh, si yàlla ministre bi ko signé woon dégg naa sax faatu na fan yi euh, yàlla ko yàlla yërëm mais képp kuy liggéey te bëggal sa réew da nga xalaat bés boobu ba loo tim buñ contrat nga di ko signé ci ay ndoddu liggéeykat mu war a nekk seen avantage ëllëg da nga fexe nekk à leur faveur ndax ëllëg bésu boobu bésam boobu ci nekk di jaar léegi nag contrat bi actuellement Guy Marius Sagna dafa am benn influence bu mu def ci moom démb pour que ñi ko def mooy ñi nga xamante bëgg nañu euh, portugais yi jëlaat kër te loolu c'est fini parce que ci appel d'offre bi ñoom état def leen exclure boolewu leen ci parce que dafa pareeg ñoom donc amuñu droit compétir cinq entreprises ñoo ñoo ñëw solutionné dugal seeni euh, demande demande bi ñett ñoo répondre ñoo répondre bi ñett répondre état bi segg ba mu des ñaar ñaar yooyu nag kenn ki nga xam ni moo ci gën avantage bi nga xam moom la présenté ci Sénégal ak ci liggéeykat yi moom la état bi nar a signal contrat bi te yaakaar naa contrat boo xamante ni yow ki nga fi jële un pour cent nga ci amoon tey boo amee beneen repreneur bu ñëw yow en tant que Sénégal nga am ci 40 pour cent yaakaar naan kooku waruñu sax toog di xaar wow na wala tooy na dañ ko war a daal di signé automatiquement parce que 25 euh, ans ñu yoroon la ko benn benn entreprise lu toll ni Dakar naa li mu toll ne ci biir port bi nga am ci 1 pour cent mënoo ci dara parce que le contrat était mal signé donc boo amee beneen contrat boo xamante ni moo ko war a remplacer une proposition de 40 pour cent bu jëm ci Sénégalais yaakaar naa ni kooku da ko war a sax gëmm signé da nga ko war waru ko contesté ñoom nag ñu fi nekk di def influence génn di wax xam nañ ñu ne seen ginnaaw mooy portugais parce que c' est des portugais noirs tey jii boo ñëwee biir ville da ngay gis un portugais bu occupé benn benn appartement boo xamante bi quatre mille francs lay fekk Sénégal ci en plein ville cercle en face cercle mess des officiers ak yenn ci ñoom waa direction ñii dafay soixante mille soixante mille francs par appartement ñoom portugais am na ñoo xam ay quatre mille francs la ñuy fay par appartement te yooyu fa mu féetewu actuellement prix à six cent mille francs mais loolu est-ce que ñun Sénégal dañoo war a continuer di bàyyi loolu muy jàll portu portugais yi njëriñ njëriñ dañu amal ba tey ji ñu am avantage bu mel noonu ci suñu dëkk ñu bugg a rester les bras croisés di leen bàyyi ñu di ko def non oh, Bassirou Diomaye dañoo dégg mu ni dafa doy Sénégal maanaam rangoo ji baadoo ci sim cërey buur loolu ñuy xaar ci moom mais nag li koy xamal mooy euh, gis nga boo dee liggéey ci réew Macky euh, def na grand pas par rapport ak Dakar daal parce que c'était pas facile mu arrêté contrat portugais jaaree la ko ci Saliou Samb kooku je lui na ko na ko na ko na ko na na approché Saliou Samb parce que c'est un patriote dafa liggéey pour Sénégal dafa defar pour Sénégal parce que PCA fi jaar yëpp maintenant c'est le seul euh, directeur général boo xam moo am ordonnance osé daal di def audit ci Dakar naa bi ñu ko joxee fëri di rapport d'audit bi génnee journal euh, Libération génnee na ko en 2022 202 milliards yoo xamante ni bi kenn xamul fu ko portugais yi jaarale boobaag léegi nag état bi continuer ay procédure am fexe accompagner leen bañ a dagg seen contrat ba contrat bi jeex mu def apport boobu yëkkati ñeneen jox leen kon yaakaar naa ni ñoo ñooñu kooku dañ ko war a saluer dafa liggéeyal Sénégal tey ji nag bu amee ku nekk ci ginnaawam am benn influence bu jege ci portugais yi dem ci moom bu xëy posté ci page Facebook am lu mu xamul ñun dañ koy corriger parce que ñoo ko gën a xam kër gi ñun ba ñu licencié dañoo ñëw ba toog ak moom fii Mari Sagna mu toog ak ñun naqarlu ko toog ak ñun naqari naqarlu ko euh, yaakaar naa photo boobu sax indi naa ko def naa def naa un rappel ni ko na fàttaliku bés bi bañ fa ñëwee di ko wax licenciement abusif bi Dakar naa def ci ñun mu lu ko kon tey jii bu amee influence bu dugg ci noppam bu ñëw am beneen tournée bu mu bu mu bugg a doxee ko nangu parce que ñu xam ci nit la nga waxoon démb bu subaa na ko waxaat loolu mooy ngor te loolu la ñuy xaar nag ci ñoom loolu la ñuy xaar ci état bu bees bi que Bassirou Diomaye mu mettre en garde ci Marie Sagna li mu dugg fu mu war a dugg te wax lu mu xam bu buggee xam dara Dakar daal ñu ñëw laajte ñu ñun liggéeykat yi ñoo gën a xam di xew te les portugais soxlaatuñ leen ci Sénégal dafa doy vingt cinq ans d'esclavagisme dafa doy loolu daal la ci amoon ñu leen di leeral suñu amaat beneen question ñu tontu